aawuzu billaahi min asheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ginnaaw bu ñu sant yàlla julli Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam eh, comme ni ko baaxoo di def rek eh, ñaari présentation conférencier dina tax ñiy déglu seen dégg-dégg ak seen taataan eh, gën a màcc ci li ci présenté di wax ak ki ñu leen di présenté sunu mag la bokk ci xadara bi ku ne dégg na sëriñ Muniru Saar bu buudi jarbaatu sëriñ Babacar Si soxna Fatimata Si taaw sëriñ Xaaj Malik jur ko ak di sëriñ Ahmad Si Saar bokk ak sëriñ Muniru Saar benn bàyyi di rakkam mooy papay sëriñ Cheikh Jaan Saar mii nekk itam bokk ci waa daara ji bu ma nee waa daara ji majalis bi day dugg ba jeex waaye itam ci wàll tubaab yàlla def may ko ci ay diplôme yu bari mu bokk ci ndeyjoor ñi nga xam ne Serigne Moustapha Sy eh, bu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy bu Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu eh, bàyyi na ko xel wóolu ko mu bokk ci ñi nga xam ni tabarakallahu ñu ko wër la eh, mu di ko sant mission yu baree bare sëñ ma xar yi waroon na ñëw tey pour def si thème bi muy rôle social de euh, daayira tabarakallahu yebal ko kon li sëñ Aliou Diagne waxoon sànq ne yaa baari al xaw si bariyan lay sa yox sinuha laa tufsidanha wa atil xawsa baariha mu mel ni tey fett gi jox nañ ko kon ki ñu ko war a jox su ko defee ci tënk ci gàttal kii mooy ki war a waxtaan ak ñun ci rôle social des daayira mu di Cheikh Ahmed Tidiane Sarr eh, di doom ci sëriñ Ahmed Si Sarr di rakk ci sëriñ Muniw Sarr bi nga xam ne jarbaab sëriñ Babacar la su ko defee kon sëriñ Cheikh Faly taw faddal mashkuran ñaan yàlla defal ko tawfiq wasalaamu aleykum wa rahmatullah baraka ala ashrafi xalqihi sayidina wa mawlana muhammadin alladi ursila wa lam yursal illa rahmatan lil alamin innahu la min dawaaci sururi walxibtati walibtihaaj an nushaarika fi hada alliqaa almaymuun fi hadihi aljazirati altaarixiya allati kaanat bil amsil baid bu'rata dulmi wa daginati wa shahnaat fa asbaxat al yowm ka baqiyati asqaaci albilaad muxarraratan min baraatini tugaat wa dalika bi fadli aljuhuud allati badalaha al ajdaad alladina adkaw jizwata altawxidi fi lbilaad wa assasu turuqa wa dawair xifaadan ala turaati nabi sallallahu alayhi wa sallam al ariq wa nasharu taalimahu samha فانفكت القيود وتحطمت الجدران العادلة بين الطبقات والأعراق والفئات وتشربت النفوس بروح الأخوة والتضامن فأصبح الناس ala ixtilaafi alsinatihim wa alwaanihim wa ashkaalihim wa awtaanihim murtabitiina bi rawaabita imaaniya wa mutamaasikiina bi washaa'ij ruuxaaniya waskuru nicmat allahi alaykum is kuntum acdaa fa allafa bayna quluubikum fa asbaxtum bi nicmatihi ixwaana walhamdulilahi rabbil aalamiin mbokk yi ñu ngi leen nuyu yéen ñëpp. ci nuyoo bi gën a tedd mooy asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa di jiital ci nuyoo bi sang yu tedd yi nga xam ne ñoo fi nekk di suñuy sëriñ di suñuy doomi sëriñ di suñuy sëti sëriñ di nuyu mboolem autorités yi nga xam ne ñoo teew fii ci barab bi di ziyaara bu baax a baax imaamu gox bi di ndokkeel ñi nga xam ne ñoo am initiative bu rafet bii comme waxtu wi dafa xaw a tuuti li ñu sant di ndokkeel bu baax nag di sant Sidi Ahmed Sarr tabarakallah jazakallah xeyran li ñu sant ci waxtaan bi mooy rôle social des daayira xëy na sax bu ñu mën a dugg comme niñ ko tàmmee ci tem di wax cosaanu daayira di ca yàgg ak di wax fu mu jóge donte ñi fi jaar am nañu ko tudd waaye liñ mën a wax rek mooy daayira cadre la ni l'islam nekke cadre cadre bu njëkk bi moo doon sharia yàlla jox ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi yonent bi demee mag ñi ci seen yitte sos tariqa ñuy laaj sax kon sharia bi dafa doylu woon lu tax ñu sos tariqa ñu ne déedéet sharia bi doyoon na waaye ni nga koy déggee dañ ne jamono ba nga xam ne nit dafay dàq kéwél ci àll bi ba jàpp ko dikk rendi ko ci biir këram kooko bu lekkee kéwal ga bu ko neexee mu tëdd ndax la mu dépensé woon ci énergie bu lekkee kéwal ga loola lu ko remplacer lay wut waaye ñu ne kuy dund ci jamono boo xam ne climatiseur mooy seral fa ngay dund doo yëngatu da ngay jox ñaari junni sa soxna mu dem ci marché bi jënd ndawal dikk togg ko kooku boo wëlbatikuwul dugg ci salle de gym wala nga def sport loola dana transformé wu cholestérol gaañ la cholestérol bi am ci yaram nag nga xam ne mooy gaañ nit am na beneen cholestérol bu ruuxaaniya kallaa bal raana alaa quluubihim maa kaanu yaksibuun moo tax mag ñi nag bi bànneex yi lëndëmee xol yi lëndëmal xel yi ñu créé waat beneen organe cadre boo xam ne dafay setal ruux yi moo indi daayira ci biir daayira boobu Eh, ci biir tariqa ko kon tariqa Sid Ahmed Tijani radiallahu anhu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu jox ko tariqa boo xam na nii moo ndar moo ndar kepp tariqa yëpp ndax yonent bi moo ko joxal boppam waaye bi ñuy liggéey ci biir tariqa tamit ci la maam Seydil Hadji Malick ñëwee liggéey ci sëriñ bu tedd bi wax na fii léegi ni metod bi Maodo amoon ci a ak daawa islamiya teg ko ci jàngale teg ko ci ubbi jàkka waaye bi sëriñ Babacar dikkee moom mu ne léegi mystique de proximité lay def te mooy euh, ki nga xam ne nii mënta ñëw nañu dem fekke ko mu sos daayira te loolu dafa am lu am solo lu tax ndax maam Seydi Hadj Malick bi mu fi nekkee société bi nga xam ne nii mooy société sénégalaise bi dafa nekkoon loo xam ne ñi ci ëpp ci monde rural bi lañ doon dund li ñu tuddee bourgeoisie bi nga xam ne nii moo commencé woon di installé ci cité yi amagul woon mais Serigne Babacar moom bi muy ñëw loolu commencé na jël forme kon nit ñi pour nga jariñ leen il faut nga indi lan leen beneen forme d'organisation boo xam ne moo leen gën a jege ba ka nga xam ne nii yitteem tax na talatul suñ borom nga créer ko structure bu bees boo xam ne dana ci mën a retrouver wu kon loolu moo indi euh, Serigne Babacar si radiallahu anhu créer li nga xam ne nii moom mooy daayira moo tax euh, lii Bachir wax sànq ci ne tariqa li ko tax a jug mooy defar nit waaye daayira donte ñun rôle social bi la ñuy waxtaanaloo am na yeneen rôle rôle ba ca jiitu mooy rôle spirituel te mooy defar nit ndax fa ilayka yab na Muhammadin naadaani chiyamun tuxaqiqu jawhara al insaani bi mu doon wax fii mooy loolu ndax tariqa li ko tax a jóg mooy def al insaanul kaamil insaanul kaamil nag mooy nit koo xam ne bakkanam tooñul ruuxam waaye ruuxam tamit tooñul bakkanam maanaam nit ku équilibré moo tax bi mag ñi créé tariqa sëriñ Babacar ñëw def daayira ñu tëral ci biir programme mu daayira bi loo xam ne dana dundal ruuxaaniya ña nga xam ne ñoo yëngu ci daayira bi ndax nag mu tasawifuun yi ñoo ne nafsaka in lam tushgilha bil xaqi shagalatka bil baatil mu tasawifuun yi dañ ne sa bakkan soo ko tënkul ci li neex yàlla sa bakkan moom dana la tënk ci li naqari yàlla moo tax maam Seydi Hadj Malick daan ne xale kenn du ko teree foo waaye dangay ngay fexe ba bu ko tal ñàkk a tal googu nag moo ñu di programme xam nga moom defoon na programme ca njarde tudd nañ ko fii léegi defoon na yeneen programme waaye programme boobu pour nag muy continuer di dëppoo ak jamono ku ne xam ne ni nit ñi ni ñu toll léegi kenn mënu leen a dajale ci benn place njar kon il fallait que ñu éclater ko def ko ay structure yu yem yoo xam ne bu ci nekk dana am ku ko mën a jiite di contrôler seen seen seen spirituel spiritualité moo tax nag ci wàllu boobu daayira ñu tëral programme boo xam ne spiritualité daf ci am doole ndax dañ ne inna shababa wal faraaga wal jada mafsadatun lil mar'i ay mafsada dañ ne ñett fu mu dajee ci nit te amul kilifa sànq yomb ko ñu ne lan ñu ne deretu ndaw ak am jot ak am koom sa poche bu ci dara nekkee deretu ndaw nekk ci yow nga am jot sànq de daf lay yomb mag ñi nag ñu capitaliser énergie bi ci ndaw ñi delloo ko suñ borom moo tax ñu créer daayira kaanat li qalbi ahwaun mufarraqatun fastajmaat musraat kal aynu ahwaa yi parce que da ngaa asaaloo woon sa bopp léegi léeg nga dem ca sabar ga léeg-léeg nga dem ca dancing ba léeg-léeg nga dem ca làmb ja léegi léeg nga dem feneen mag ñi ne joxal sa bopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxal sa bopp yàlla énergie bi nga tasaare woon fu nekk nga séddale ko nañ ko dajalee lépp def ko muy benn dànk yu jox ko suñu borom moo tax nga gis ne daayira mission bi mu am bu am solo la su ko defee nag pour dugg ci thème bi nga xam ne nii moo tax ñu jóg loolu benn aspect la muy aspect spirituel bi am na aspect culturel mais aspect social bi fi ñu ciy njëkk a tàmbalee mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne bu'istu li utammima makaarimal axlaaq nee na dëgg dëgg dëgg dëgg li tax yàlla yónni ko pour mooy mu mottali jikko yu rafet yi am na ñu naan fukk la mën naa ëpp la ko waaye daal li ci am solo mooy fexe def nit ku yiw ku ne xam ne ne makaarimul axlaaq génnul alquran ndax sayyidatuna Aïcha loolu la daan wax buñ ko laajee lan moo doon jikko yonent bi mu ne kan xuluquhul quran waaye mag ñi pour rôle social bi njëkk a def ci daayira fañ ca njëkk a commencé mooy éducation des adeptes dans l'amour divin c'est-à-dire yar gi ñu yar taalibe yi ci sopp suñu borom sopp suñ borom googu dafa royaatal ba sopp mbindeefam yi ndax ku sopp suñ borom mënatoo bañ nit ku yàlla sàkk cofeel googu moom leen jëmbat ci xol yi ndax moo tax boo gisee mu tasayu fuu nii baatu xub baatu xub baatu cofeel ñoom ñëpp boo liiroon xasaa xasaayidu sëñ Babacar yi nga liir nuuni yàmm rafet boobu mu def ci cheikh buy tagg cheikh fa mu cay commencé ci cofeel di wane cofeelam day wane ne ñoom seen xol dañ koo jox yàlla ba mu jeex jox giñ jox yàlla seen xol ba mu jeex ak cofeel giñ ëmbal seen borom mooy royaat ba kuñ ko séqal ci pénc mi cofeel rek lañ la mën a ëmbal déggal mutasawif bi di wax ci cofeel ayuhal aashiqu maana xubbina muhruna gaalin li man yaxtubuna jasadun magniyun wa ruuxun fi laana wa jufunun la tazuqul wasana wala fuaadun laysa fihi gayruna wa isa ma shita fa addi thamana ñoom ni ñu théoriser woon cofeel mu ne ayyuhal aashiqu maana xubbina yow mi nga xam ne nii dangaa bëgg a xam dëgg-dëgg lan mooy suñu cofeel muhruna gaalin liman naa mu ne ñun suñu can suñu can dafa cher ñu yaakaar ne can gi dafay tudd ay million wala dafay tudd ay voiture walla kër mu ne déedéet suñu can xam nga lan la na mabniyun yaram woo xam ne du jóg ci soo ngooŋ yaramu feebar ndax wa iza kaanatil nufuusu kibaaran taibat fi muraadihal ajsaamu ku yóotu lu sori sa sa yaram du noppal jasadun matma'innun mooy yaram woo xam ne nii du jug ci coonam wa ruuxun fil anaa yaram wuy feebar wa ruuxun fil ak ruux goo xam ne du jug ci coonam wa jufuunun laa tazuuqul wasana ak mbari bët yoo xam ne du mos du mos nelaw ndax tatajaafa junuubuhum anil madaaji'i ak wa kaanu mina layli qaliilan maa yahja'uun wa fu'aadun laysa fiihi gayrunaa ak xol boo xam ne duñ ko bokk keneen ndax dañoo fiir wa isa ma chita fa addi boo ñu nabee jox ñu can gi gis nga cofeel googu ñu def moo tax bu ñu ca créé daayira nga ñëw Tiwaawan ñu ne la almutahaabina fillah yéen ñi ngi soppante ngir yàlla ka nga bokkal daayira ba mënatoo koo bañati mënatoo koo bañati ndax lan ngay gis jëmmi sëriñ baleen boole lan ngay gis jëmm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma leen boole lan ngay gis suñu kattanu borom ma leen boole kon foofu la commencé cofeel googu nag bi bi mu amee ba pare ñu indiwaat beneen muy la cohésion sociale daayira yi dañoo am rôle de cohésion sociale te mooy dañuy fexe ba dajale nit ñi ci pénc mi nit ñi am insijaam te loolu njàngale yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa bi mu dikkee dafa fexe dàq lu ñu tuddee waasoo fexe dàq askan inna akramakum inda allahi atqaakum benn identité moo am muy at taqwa muy ragal yàlla ku la ko ëppale gën la laa fadla sëriñ bi fàttali na ko léegi laa fadla li arabiyin ala ajami wala li ajamiyin ala arabi wala li ahmara ala aswad wala aswada ala ahmar illa bi taqwa loolu moom jëmbat ci daayira parce que bu ñu dikkatee dootuñu waxati kenn lu ñuy wax waa daayira bi waa daayira bi te loolu jàngale yonent bi la mais Seydina Cheikh radiallahu anhu tamit bi mu dikkee dafa gën a dëggal jàngale yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen ne ci njëlbeenam Seydina Cheikh ki mu takkoon ab sharifa la di mbokkam mais bi mu demee ba ci biir xam ne moom cheikh li muy wut dëppoowul ak li ndaw si ñu ko boole di wut da ko wàcc biñ ko laajee mu daan ne albint tuhibbul wisaada wa tijaani yuhibbul ibaada mu ne mu ne soxna si dafa bëgg njegenaay te man dama bëgg jaamu yàlla ki fas yéenewul lu dul nelaw mënul bokk ak néeg ki fas yéenewul lu suñ borom lu mu def mu dem ci marché bi jënd ñaari jaam goreel leen takk leen mu dikk fekk Maroc ñu ñu ñu am ñoo xam ne dañ leen di néewal doole nan leen ay jaam la ñu tudde leen mubaarak ak mubaaraka mu ne at daarul mubaaraka hiya allati fiiha mubaarakun wa mubaaraka révolutionné loolu moo tax moom muslih ijtimaai la gis nga loolu moom la Seydil Hadji Malick jëlee ci moom xam nga Maodo bi mu dikkee sëriñ bi fàttale na sànq ne fekk na fi tubaab yi tubaab yi diviser pour régner moo doon seen seen méthode nañu tàqale nit ñi mais fekkoon na fi ceddo yi ceddo yi ku nekk beroon nga tasoon nañ réewum senegal def ko ay réew yu ndaw roi ay petit royaume kenn moom Bawol la nekk moo ko jiite ñu koy wax ab teeñ kee nekk Jolof ñu naan ko buur ba kee nekk Saalum kee nekk Siin kee nekk Waalo ñu naan ko Barak Seydi El Hadji Malick bi mu dikkee fexe na ci yitteem ba ka nekk Bawol ak ka nekk Siin ak Saalum ak ka nekk Jolof ñu mu fexe ba dajale leen ñuy daje bésu gàmm ku ne di xam li yenn sa morom ku ne di xam la sa morom nekkee mu tënk leen ci benn baat ci kalimatu tawxid tënk leen ci benn baat ci benn baat muy naasiril xaq bi xaq su ko defee ñu séq mbalaan wasifa mi wër ko jonjoo kon unité nationale taxaw na unité nationale taxaw na su ko defee bi loolu weesoo ñu ne tariq euh, euh, daayira ba tey am na ci rôle cohésion sociale mooy yar gi ñuy yar nit ñi yar gi ñu yar nit ñi ci ñu nekk benn ci ñu nekk benn lu ñu tuddee esprit de concorde te mooy ñu fexe ba dara du leen mën a teqale jàngale na ci loo xam ne daayira yi programme boobu moom lañ continuer xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa bi muy jàngale taswiyatu sufuuf taswiyatu sufuuf maanaam ci julli nañu fexe ba suñuy sàppe jub nañu fexe ba suñuy sàppe jub xam nga sàppe yu jub yooyu xol yu dëppaloo lu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon jàngale xam nga la la tusawwunna sufuufakum aw la bay allah bayna wujuhikum bi mu koy wax nee na da ngeen seeni sàppe dana dana jub wala yàlla dana tax seeni xol dëppoo seeni xol dëddoo mais daayira xam nga bi ñuy indi tenue ne na ñëpp bokk tenue bi ñuy sol na ñëpp bokk zikr bu ñuy wax na ñëpp bokk air bu ñuy jànge air bu ñuy jàngee way bi air bu ñuy jàngee tey taysiir air bu ñuy wasifa nga xam ne dañ koo war a def di yëkkateendoo di tegandoo loolu ñu ñuy jàngal ne dëppoo googu mooy suñu kàttan xam nga dégg nga maam sëñ Hadi Touré ba naan bu baat ya ruube dégg ci wasifa ba bu baat ya ruube bu ay shadday woyef te bu ay mbijjaan di des lii la wax moom Cheikhu Tidiane bu baat ya ruube ndax baat yuy ruube ñee di wax lee ñee di wax lee manque de discipline la loolu discordance mu ngi njëkk a feeñ foofu biñ ci jógee nag esprit de fraternité daayira yi loolu moom lañ cultiver aussi ndax innamal mu'minuuna ixwa fa aslihu bayna axawaykum esprit de fraternité nañu fexe ba nit ñi ñu am koo gis sa moroom gisatoo sa mbokku taalibe mais sa frère nga gis aashu ala alxubbi afwahan wa afidatan baatu ala albusi wan naamaa yi ixwaana baatu alal buxsi wan naamaa yi ixwaana dañ ne nag fraternité dëgg dëgg dëgg dëgg du fraternité baat mais fraternité xol la bul ko wax ci kàddu waaye na nekk sa biir xol te loolu moom la mag ñi def moo tax bëgguñu mukk taxsibuhum jamian wa qulubuhum shatta mu bokk ci suñuy suñuy principe maanaam ñoo xam ne nii boo leen gisee mu mel na dañoo ànd ci biti fekk ci biir ànduñu moom la sëñ Babacar doon wax moytu leen daje jayante te di jëwante ah koo xam ne dañ ne bul daje jayante te di jëwante kooko ñu ngi lay tere nga lor sa mbokk taalibe te loolu Seydina Cheikh moo ko wax yonent yonent bee ko wax Seydina Cheikh radiallahu anhu qul li asxaabika laa yu'dunii bi iidaa i baadihim cheikh moo ne yonent bi ko wax ne ko waxal sa taalibe bu ñu ma lor si naa cheikh na yonent bi samay taalibe nañ leen la mën a lore mu ne ko ñoom buñ lorantee lor nañ ma moo tax maam sil xaaj maal bi ne ida uhum hidayatun lil mustafa salla alayhi rabbuna wa man qafa mais yemul foofu non seulement dafa incité nit pour ñu bañ a lor seen mbokku taalibe mais dafa wax conséquence ba lor sa mbokku taalibe la ca mën a juddoo mu ne waman yudayi an sax bi fallahu yabtalihi suu a kasbi bi an yudayaa xuquq allahi subhanahu jalla an il ashbahi nee na sax dem na ba képp koo xam ne ni yaa ngi lor sa mbokk taalibe fu ngay mujj mooy yàlla dana la sanctionné parce que da nga def da nga tooñ yàlla loo xam ne nii yàlla du la ko mën a baal benn mbokk da ciy wax lu am solo nee na carton rouge ci biir terrain ku ko waral carton rouge pourtant de mën naa am saagawu arbitre ba pourtant mën naa am sax saaga président fédération la fédération ba pourtant mën naa am sax saaga woo ministre du sport ba kan nga saaga wala kan nga dóor sama moromu jour bi ci terrain bi ñu jox la carton rouge kon loolu moo lay wan ne eh, ñi ngi lay bàyyiloo xel ñi nga settal léegi nag bu uxuwa boobu amee solidarité taxaw tadaamun te lu am solo la rôle social bu am solo la ci daayira yi loolu nag dañ koo teg ci un principe coranique wa taawanu ala albirri wa taqwa wala taawanu ala al ismi wal udwan yonent bi teg ca unsur axaaka zaliman aw mazluman te mooy nga war a fexe ba foo toll di sa mbokku taalibe ci la nga mën moom la sëriñ Babacar si théorisé woon ci sànq leen booloo wat wer sànq leen booloo wat wer maanaam loola mooy biir daayira bi da nga fa fekk directeur da fa fekk entrepreneur da fa fekk ouvrier da nga fa fekk chômeur kon nag boole leen seeni doole boole leen seeni xalaat boole leen seeni mën-mën ba ñi am dimbale ñi amul ñi xam xamal ñi xamul ñi am mënal ñi manul wa ala shuubi taawunun wa taaarufun abadan ala ma waaye nag ñu teg ca ne ku amul dara nag munoo munoo dimbale kenn munoo def solidarité kon solidarité dafay teg ci am moo tax mu tasawufoon yi def le culte du travail maanaam inciter nit ñi pour ñu fàggu loo xam ne dana mën a tax seen dimbalante mën a dem moo tax li ñuy wax soufisme de la contemplation ñu ne dañ ko war a changé ak le soufisme de l'action soufisme de la contemplation mooy tasawuf bi nga xam ne nii mi ngi dellu ci xalwa mi ngi dellu ci kurus mi ngi dellu ci faste say loxo ñu ne boobu baaxul bi ñu war a def mooy soufisme de l'action dafa am benn mu tasawuf dafa am benn taalibeem bu ñëw nekk ci zaawiya bi dafa ay fan euh, bi bi ko góor gi gisee mu toog ci jàkka ji mu dikk ne ko yow lu la tee jóg nga liggéey mu ne ko atawakkal ala allah mu ne ko ndax bi ma duggee ci sa zaawiya bi damaa gis benn looy boo xam ne nii dafa sit dafa gumba benn saqar saqar moom lu ñuy tuddee épervier mu ñëw di rëbb di ko di ko leel ma xam ne yàlla mi nga xam ne mooy leel euh, looy mu gumba mën na maa leel nitu yàlla bi ne ko hal laa takuna safran taakulu wa tutiu mu ne ko ba nga demee bay tànn nekk ci lenn ci ñaari picc yooyu lu tax tànnoo nekk ki nga xam ne mooy rëbb di dundale lu tax nga tànn nekk ki ñuy dundal kon ci nga liggéey am na ci keneen koo xam ne dafa waxoon benn taalibeem ne ko laysa tasawufu indana an tasuffa qadamayka wa gayruka yumawilu laka bal ibda bi raxifika faxrusu summa tasawaf wajal min charaka subhataka wadkur ala daqaati lfasi wal mukuuk mu ne ko tasawuf ñun tekkiwul ci ñun nga faste say tànk toog keneen di la dundal waaye tasawuf li muy tekki mooy da jóg yore sa semmiñ yore sa puso yore sa gaal yore sa plume nga liggéey mu ne ko ndax sa sa sa sa ba nga yor muy dóor ca biir tool ba dóor googu muy dóor ca tool ba moo kocc kocc kurus ga nga yor ñooyam ndax wa in min cheyin illa yusabbihu bi hamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu su ko defee nag loolu mooy tax solidarité organique bi mën a am mooy li Bachir waxoon sànq solidarité organique bi te mooy mathalul muminina fi tawaadduhim wa taatufihim wa taraxumihim ka mathalil jasadi lwaxid ida staka minhu aduwun tadaaw lahu saahirul jasad bi sahri walxuma su ko defee mooy tax eh, eh, solidarité boobu mooy mën a xeex li ñuy tuddee al faqr mooy ndóol xeex ndóol xeex ñàkk ci pénc ndax pénc bu ca ñàkk amee dafa mën a indi problème pénc moo gis ñàkk am fa problème du fa jóg yonent bi sallallahu alayhi wa da daan muslu ci ñàkk da ci daan muslu euh, bi ci desit mooy dañ ne Seydina Ali daana wax ne kaadal faqru an yakuna kufran nee na ñàkk daal tuutee teekoon ñàkk nekk kéefër imam Shafii daana wax sax ne bu leen discuter mukk bu leen discuter mukk koo xam ne bàyyiwul farine këram ku bàyyiwul farine bu mu mën a defaree mburu këram nee na ku xuloo ku wax ak moom yaa ko tooñ xam ngeen ne ki bàyyiwul dépense këram kooku bu toogee ci sa jàdd di tudd suñu borom sax du teewul benn bokk ma ci nettali benn anecdote nee na waa ji dafa toog zikru hadratul jumaa ñuy def hayla la waaye moom fekk na ndaw samu am ma koy laaj tay baas ma koy laaj tay baas te yoru ko gaa yi toll ci laa ilaha illa moom au lieu laa ilaha illa allah la may ñaan tay baas la may ñaan tay baas la may ñaan am naa marinière mu ne moom ndaw si am na marinière waaye tay baas la koy laaj xoolal xoolal alkalima almusharrafa ci zikru xadratul jumaa nga xam ne buñ commencé yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day teew bokkul ak wazifa nga xam ne day xaar bu ci juróom-ñaari per yi mais wazi xadratul jumaa booy commencé rek yonent bi teew la ak saxaaba yi Seydina Cheikh ca wet ga am na sax mag ñu ne Seydi Hadj Malick ca wet ga pourquoi pas su ko defee nee na ki baat bu sell noonu ak instant bu sell noonu waaye ñàkk dépense tax na waaja moom xelam nekkul ci teewlu yonent bi xelam nekkul ci teewlu xëylale bi mais ma ngay teewlu la la mu fàtte kër ga moo tax kilifa gi doon na wax ne alfasaadul maali yu addi ila alfasaadil maishi wal fasaadul maishi yu addi ila alfasaadil axlaaqi nee na ñàkk ñàkk bu amee neena na dundin dundin du jag te bu dundin jagul nee na jikko du jag su ko defee kon loolu yi dafa bokk ci yi nga xam ne euh, daayira war na ci taxaw pour defar ko ci pénc mi te loolu mi ngi jaar par la solidarité mooy tax ñi nga xam ne nii yàlla daf leen a mënloowul ñu fexe ba ñu mën ñi nga xam ne yàlla daf leen a tax xamuñu ñu fexe ba ñu xam mais bi ci des nag te na moom la ñuy tëje ndax bëgguñoo jël temps bi mooy li ñuy tuddee récupération des marginaux te mooy daayira daawa lay liggéeyal te daawa war naa fexe ba ñi nga xam ne pour une raison ou pour une autre ñi ngi nekk à la périphérie de la société wala ñi ngi nekk en marge de la société ndax xëy na lu ñu def la ba société bi bannir na leen wala lu ñu mel la ba société bi wàccu na leen ñooñu war nañ fexe ba récupérer leen yar leen jàngal leen maanaam daawa bi warul nekk rek loo xam ne dañ koy yemale ci ñi nga xam ne nii wuy si nañ ba pare mais ña nga xam ne wuy see guñ te dañoo nekk ñoo xam ne mën nañ leen comme ni ñu leen mën a tuddee ay déchets sociaux parce que société bi rejeté na leen ndax lu ñu def ñu fexe ba reen intégré la waat leen te Seydina Cheikh ku ku miin jàngaleem xam nga ne daf na loolu ay mbokk ñëw nañ di ko laaj imam ñu yaakaar ne da leen di jox kenn ci ay muqaddamam mu yebalal leen ci kenn koo xam ne fañ ko fekk. ma nga tege butéelu sàngaram tege jaaseem nekkoon ab agresseur Cheikh récupéré ko sol ko xam-xam sol ko leer def ko imam loolu ma maam Seydil Hadj Malick wax dégg nga la suñu suñu Alioune wax ataawa biqaa suuyi suudi zulmun wa zulmatun fa xaama bi sayfi lhammi bilxaqi mujradi fa jahada fiha bi siyaasati wa nada wa ilmin wa xilmin fahtada kullu mu'tadi nee na moom la Maodo def bi mu ko defee nee na fahtada kullu mu'tadi ña nekkoon bandi ya démb ña nekkoon ay brigand ña nekkoon ay marginaux ñëpp mu récupérer leen def leen ay nit la Cheikh Tidiane Gaye dafa ma daan wax xam nga Seydil Hadji Malick lu tax mission mu réussir ko mu ne ma ña ko wuyu si woon di ay mag ñëpp def na leen ay nitu yàlla ndax jàng weesu na ci ñoom mu ne ña ko wuyu si woon dese ndaw ñëpp def na leen ay boroom xam-xam ba pare def leen nitu yàlla benn góor wax ma ne yaru Seydil Hadji Malick li tax muy réussir nee na benn muqaddamu Maodo moo ñett la ñu Seydil Hadji Malick defal daf ñoo jàngaloo ba ñuy bëgg a dee mu jaamuloo ñu yàlla ba ñuy bëgg a dee mu liggéeyloo ñu ba ñuy bëgg a dee kon ñett yi mooy programme bi Maodo tënke woon tariqa bi ñett yi tamit moo war a nekk le programme fondamental des daayira te mooy ñi jàng bay bëgg a dee jaamu yàlla bay bëgg a dee liggéey bay bëgg a de loolu yaakaar naa bu ko daayoo yépp defee pénc mi dafay avancer ndax pénc bu fekkee amul ku réer bu fekkee amul ku ñàkk bu fekkee aussi amul koo xam ne ni jikkoom dafa tardé pénc ma dafay dem ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam madinatul munawwara ba mu fa nekkee looloo taxoon madina nekk réew mu sell ndax ñu mel noonu ñoom ñoo fa génnoon kon nag ñi ngi jéggalu ñëpp leen baalu àq wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin wa salaamu aleykum wa rahmatullah